asalaamaaleykum wa rahmatullah mbokk yi suivre Lutte TV point com ñu nuyuwaat leen ziar leen comme ni ngeen ko xamee tey waa Lutte TV sol seen dàll ñëw ba fii ci biir ministère bi fekk si fi ki nga xam ne moo yore wu ministère bi di Mbaye Jacques Diop Babacar ànd ak Lamine ak Ibrahima Faye tey ñu ñëw fas ne waxtaan ak Mbaye Jacques ci loo xam ne tamit làmb la ndax moom yaakaar naa ku xam Mbaye Jacques wala ku xam làmb xam nga ci Mbaye Jacques mu lay nuyu di la ziar. maa ngi leen di fay di leen aussi delloo suy di leen félicité euh, félicité leen parce que bi ngeen ñëwee ba léegi ay euh, maanaam euh, ay tout tànk ngeen mais tout tànk yoo xam ne fi mu ne nii jéggi ngeen sax dayoo parce que yéen a ngi bokk mu mel ne yéen def ngeen ci làmb ji plus de vingt ans incha allah rabi Lutte TV bi bi mu commencé ba léegi am na fu mu yóbbu làmb te am na aussi fu nga xam ne dina fa gën a jëmale làmb. mais man bëggoon naa xam ndax est-ce nga liggéey ak yeneen promoteur yu bokkul waaw xam nga gas bi mu njëkkee ñëw daf ma euh, ànd ak man bi sëriñ Modou di njëkk ñëw boobu maa ngi nekk info 7 mu woo ma mu ñëw ne ma Mbaye Jacques kii dafa bëgg ci làmb ji jàppale ko ma liggéey ak sëriñ Modou jàppale ko pratiquement premier combat yi yëpp ñun ñoo ko def foofu suñu bureau daan ñëw l'info 7 tamit doo du ko remercier parce que nit amuloo lenn lu dul nit ne la jàppaleel nit nit def ci yow confiance ma jóge ci sëriñ Modou liggéey naa ak Luc Nicolaï loolu yëpp gas moo ma doon jox ay tegtal di ma wax jàppaleel diw parce que dafa dugg ci làmb nit bu duggee ci làmb nag da nga koy jàppale parce que làmb dafa yaatu askan la am na ay promoteur yoo xam ne aussi jot naa liggéey ak ñoom ku mel ne Aziz Ndiaye daan na ma woo ñu toog sottante xalaat ku mel ne Pape Abdou Fall dañuy woo di sottante xalaat Assane Ndiaye parce que pour man ñii c'est des opérateurs économiques dañuy développer loo xam ne ñun sunu culture la dañuy développer loo xam ne sunu sport national la bu koy développer nag di ci def seen ay alal pour askan wi ñooñu dañu war a dañ leen war a jàppale boo gisee sax lu rafet nga wax ko ku mel ni par exemple euh, Pape Thialis liggéey nañu maak moom ci làmb ji parce que on discute beaucoup dañ ciy liggéey boo ko ci ay programme am lu bëree bëri dañ ciy waxtaan donc dama lay won ni rek ñun peut-être que yàlla may ñu yàgg ci làmb ji mais chaque jour dañuy jàng. am nañ ci nag tuuti xam-xam mais xam-xam bi lu néew la lu new luñ ci am nag dañ koy partager ak ñi nga xam ni ñoom la yàlla séddee tey ñu yor les rênes di pouvoir de la lutte maanaam promoteurs yi muy managers yi muy amateurs yeeg yëpp parce que dañuy discuter ak ñoom donc man promoteur yëpp laa amal xaar ma yàlla te am na ñoo xam ne liggéey naa ak ñoom donc loolu moo lay won ni tey position bi ma nekk sax jafe office de conseil di détoog di taatante ak ñoom di discuter ak ñoom ci yenn point yeeg yooyu dañ koy delloo njukkal le Don King de ren muy Gaston Mbengue voilà. mbay fay mbër yenn ñu naan kase cent millions dafa seer rek. xam nga gis nga nit aussi lu mbër am wërsëgam la parce que nit ñi aussi nañu relativiser xam nga ñun dañu opté pour nekk ay fonctionnaire su ñu amee trois cent mille wala quatre cent mille cinq cent mille ñun ñoo ko opté opté wuñu mbër mbër bu opté tey bu gañee cent millions war na ko mën a gañee mais attends Neymar ñaata lañ ko fay. ci transfert bi bi mu jógee reyal dem euh, Barcelone dem Paris Saint-Germain kenn mësul woon imaginer que football dina yegg foofu Mbaye Gueye bi muy ñëw un million dañu wax dafa dof Tyson fay nañ ko deux cent cinquante millions ci combat ñu bari xamuñu loolu. waaw. kan moo defoon loolu. parce que Gaston ko defoon deux cent cinquante millions ci benn combat Tyson. boobu moo kal la woon combat boobu. moo Yékini bi donc Yékini aussi fay nañ ko lu toll loolu donc dañ lay won nii ñooñu gis nga tey moo tax gis nga mbër yi war nañu mën a gañe loolu parce que booy imagine toi Ama Baldé ak Papa Sow di préparer combat deux ans fay ñu la sax cent millions wala cinquante millions deux ans nga topp ko di préparer combat ñu ko de report en report ñu ñëw nga war a tey boot sa njaboot boot sa ay am di jàmm ñëpp nga war leen boot ak sa écurie yëpp mais temps yow xam nga euh, avance bi ñu joxoon jeex na ba nga leb reliquat bi te soo moytulee soo demee reliquat bi nga def ay san nga def ay fautes yoo xam ni CNG daf la daf koo tere ñu sanctionné la xëcc ci yow peut-être quinze pour cent wala dix pour donc mbër war na mën a fayee ko deux cent à trois cent ba cinq cent millions mais nag lépp dafay wàll ci charte bi et ministère de le ministre des sports monsieur Ba mi ngi liggéey di ci xalaat parce que arène nationale bi arène nationale bi buñ ko bu ubbee dañ koy organiser à telle enseigne que làmb mbër war na mën a sax gagner deux cent à trois cent millions mais lépp ci organisation ak méthode lay def parce que ñun on travaille sur la planification donc bu ñu travailler par rapport à une stratégie par rapport à une planification bés bu ñu paree dinañ woo toutes les composantes ministre bi bu boobaa dina woo toutes les composantes de la toog ne man li doon xalaat ak arène bi pare lii la a def parce que làmb dafa ko dafa a di progresser bu amee crise aussi la crise elle est financière mais elle n'est pas une crise structurelle la crise est financière te crise financière bi lan moo ko indi mooy lan pooy parce que les promoteurs n'ont pas su réfléchir par quel procédé il faut euh, pour avoir un retour d'investissement yow nag euh, sooy monter sa combat da ngay def ce qu'on appelle euh, un montage financier mais le montage financier équivaudrait à ce que vous puissiez aujourd'hui faire en sorte que yow soo monter par exemple ce combat à 150 millions même loo ci sonn ak yooyu war nga ci am deux cent millions wala cent cinquante wala cent vingt cinq millions sax nga am ci nga xam ne am nga ci dërëm boo xam ne au moins am nga ci wala soo soo mënul am bénéfice nga amaat sa cent yow làmb tey sponsor moo ci war a nekk pour muy dox wala bu ci nekkul tamit làmb war na mën a dox. waaw xam nga sponsor yaa koy wuti promoteur yëpp ñoom ñoo doon dem seeti sponsor yi de mais sponsor boo koy seeti da koy proposer loo xam ni moo war ko ni lii moom am na benn produit boo xam ne dafay coller ci image bi mu bugg wala peut-être que am benn loo xam ne daf ciy coller. mais promoteur aussi euh, sponsor aussi su ñëwee ci làmb day ñëw ci làmb pour benn cible mais su atteindre objectif am day dem wuti baat beneen peut foo xam ne peut-être foofu la objectif am yi foofu cible am loolu la loolu la ciblé noonu rek la parce que sponsor sponsoring cycle la dafa benn cycle boo xam ne ñoom dañu naan par exemple ñun comprendre nga on a une cible pour une période bien déterminée loolu su kii maintenant xam nga léegi y a un système pay per maanaam le système la soo xoolee États-Unis ñu ngi ko commencé ñoom depuis combat euh, Mohamed Ali ndem si yàlla Mohamed Ali ak Joe maanaam nit ñi dañuy fay soo fayee comme par exemple ma jox la exemple combat bi Luc lay waxoon ak kii fay nu mu tuuti ak euh, kii euh, gri Bordeaux ak seen kii bi ak waaw ak Balla Gaye Gris Bordeaux pourtant waaw gis na benn ku xarañ ci wàllu internet muy Ibrahima fay ñu discuter ak ñoom. ñu war a mën a jaay ñoom loolu parce que war nañ ko mën a jaay ku nekk Japon war nañ ko mën a jaay ku nekk Angleterre war nañ ko mën a jaay ku nekk euh, ba Australie ku nekk ba euh, par exemple Hong Kong yooyu yëpp war nañ ko mën a jaay ñoom suñ ko jëndee yow dafay yomb sa carte crédit rek ngay dugal comprendre nga pour mën a gis làmb ji ku nekk Chine bu ko seetaan làmb ji bu dugalee 1500 francs ñaata euro la wala ñaata dollar la xam nga loolu du dara nga seetaan ci tout un spectacle. ay dina jafe. sponsoring génneel la cent cinquante cent millions de francs CFA donc il faudrait que nit ñi aussi di réfléchir par rapport à des concepts par rapport à ce qui se fait il faut voir ce qui se fait dans le football ce qui se fait dans l'athlétisme ce qui se fait aussi dans les autres disciplines sportives nga xool le modèle français nga xool le modèle allemand nga xool le modèle italien le modèle anglais nga transporter ko lu ñuy wax le ce qu'on appelle le nga indi ko fii nga jëm ko conceptualiser par rapport au modèle et aux réalités sénégalaises parce que noonu la ñuy développer aussi discipline noonu la ñuy développer aussi produit noonu la ñuy développer aussi li nga bëgg au moins askan wi xam ko c'est vrai que Sénégal dina xaw a metti parce que on n'a pas cette culture là mais dina yomb aussi bés boo toogee nga leeral ko ci bopp askan yi mu leer donc loolu promoteurs yi ñoo war a tendre vers ça maintenant aussi les sponsoring peut-être que mooy li ma la wax am na ñoo xam ne atteindre nañ seen cible dootuñu ñëw mais aussi promoteur yaa war a proposer un alléchant programme euh, au moins nga def une plateforme boo xam ne di nga ko proposer au moins aujourd'hui euh, le le sponsor sponsor bi bu xoolee ni kii par exemple ça colle ou bien ça adapte comprendre nga à son produit et mun na ci am visibilité wala moom mun na ci am un retour d'investissement mais forcement dafay engagé wu mais su fekkee ni par exemple aussi gisu au Sénégal les gens ont l'habitude de faire du mécénat mais il faudrait que aussi les promoteurs ñu dem vers le professionnalisme di monter des dossiers ficelés ay dossiers techniques yoo xam ne dañ koy monter monter des offres commerciales yoo xam ni dañ koy dem présenter gi comprendre au directeur marketing des sociétés ou bien au directeur de sponsoring des sociétés discuter ak ñoom et sur la base aussi d'un climat de confiance mooy mais aussi tout en euh, signant ak discuter ak ñoom sur la base d'un climat de confiance mais nga dem aussi nga nga mën a convaincre aussi les télévisions sur la nécessité aussi de rendre visibles les produits comprendre nga yow yi nga xam ni moom nga war a mën a signer wala moom nga mën a a am euh, ak ak ki nga xam ni moom ngay war a signer contrat. man su ma la tamit tudd nga projet Luc Nicolaï boobu noonu. sa gis-gis projet boobu yaakaar nga ne lu war a mën a nekk la lu war a la. non xam nga loolu c'est c'est dañ parce que loolu moom la ñuy def partout dans le monde partout dans le monde loolu la ñuy def boo xoolee ci football bi am na nga xool ci basket beeg ci yëpp am na parce que di nga mën a nekk tey yow joof yor amuloo tele war nga mën a fay pour seetaan gri Bordeaux Balla Gaye en direct ci sa téléphone ci sa smartphone mais loolu lañuy def partout dans le monde cest à que ñun il faudrait que su fekkee nañu bëgg développer et je pense que loolu dafay aussi intégrer ce qu'on appelle le plan Sénégal émergent man plan Sénégal émergent xam nga laa ko tuddee plan sportif emploi waaw plan Sénégal émergent parce que le sport est inscrit dans le chapitre premier du plan Sénégal émergent donc c'est le plan sportif emploi te tey daf ciy créer emploi te loolu c'est dans le domaine du sport parce que làmb donc PSE bi égal P plan Sénégal emploi te loolu war na mën a am fii donc loolu c'est une bonne initiative moi je pense que nit il faut ñu dem vers parce que les télévisions ne payent pas quand les télévisions ne payent pas aussi il faudrait que les gens ñoom ils ont investi à millions dans un combat il faudrait qu'ils qu'ils un retour d'investissement parce que les télévisions ne vous en donneront jamais cinquante millions ou millions Maintenant, quand tu vends euh, ton kii à travers le, ce qu'on appelle la vente en leasing, mais forcément